de Lampita. de Lampita. Sénégal de bëgg ay coggu bëgg ku leen waxal lu baax xam ne day Europe 20 millions rek ne kaay Sénat ma kaay jël ma yaa fi nekk non. non non dofuñu snapper yi ak ñu am fulla da ngay bëgg a ñëw pour siiw ñi siiwal la da sit loolu nga bëgg soo paree ñu topp la may la di nga daanu ñu ne ah diw kalkaaka mënta dem yorul day sommaan la dëgg la xam nga léegi nag nit ki nag soo sa alal gasal sa kam mu xoon nga suul ko yor par nànk-nànk te dimbali ñi nga war a dimbali mhm. moodu moodu yu bëri ngi ami ay problème ami ay situation faatu faatu yu bëri am ay situation te sénégalais yi ñoo leen di nax ñoo leen di nax la ñuy gëmloo nit ñi ak la nekk c'est pas la même chose. surtout tam ak sëriñ yi ah. bu la waxul sëriñu yenn sëriñu fenkat yi nga xam ne gëmuñu dara <laughs> te ku si weddi li ma la wax wóolu sëriñ bi nga gën a yaakaar mooy la seetal nga ne ko damaa réer le 10 millions sama kër lañ daaj sama awmaar nga dégg mu ne la jiñ ko borom pata beeg wala borom biir bu rëy beeg wala borom nopp bu xees bi dañuy wax gëmu si dara. <laughs> gis nga tey sëriñ bu mën doo gis mu naan k internet kay jël ma. barke Cheikhul Khadim am na dëkk yoo xam ne soo fa billahi tey jii billaahi tant que picc yi sa saboo ñu doo dugg si biir dëkk bi. billaahi wallaahi taalaayi te xam soo la joxoon sa 5000 xamuñu luy 5000 xamuñu ko. xamuñu ko duñ ko laajteel. man dem naa dëkk boo xam ne jënd naa nag dañoo woo bi yëpp génn ndax mosu ñoo gis nag. ñooñu ñoo mën. waaw dama la. lépp lu ñuy ñaan te yàlla ànd suñu ko def. dëgg la xam nga. Mhm. mais jamono yoo xam ne liggéeyal ma diw diw def na nii nangu sama jëkkër nangu sama far xale jigéen jël ay yokkutaat turki lu ne ñu du ko def di feebar te turki yi xamuñu dara ku dee ñoo la rey. yokkutaat yokku weer mais da ngay gën a jongoma. mais ma xamal leen dafa am ñu ko mën. man bañu ma mais sax loxo fu mu yem. waaw dama la non non turki gerte su mbaam la ñuy jël di leen ko rofal. ah te mm, ki ki ki lay yokkal daa war a jël sas graisse biir yi. waaw defal la ko sa yaram bi. normalement mais ñoom li ñu leen defaral xam nañ ñu ay seen africain lañ ñoom seen yoon bala ñu ñëwaat turki bala ñu jënd bee bay ñëwaat fekk ñu faatu léegi noonu la ñu leen naxee espagnol yi ñoo mën loolu. mais dañoo cher. non lu mu cher cher ñaata nit ñoo gaañu si ay yokkitaat ay yokki ay ay la nangam. bëri na ah tey. fii la fii la Sénégal la ay tax mais est-ce que tamit du góor yi moo leen ci yóbbee. parce que yéenay bëgg jigéen bu jongo ma waaye ma ne Sénégal Sénégal la taat dox soo demoon ay Belgique ak France ak ay ay Espagne ñëw ñu taat. Ah. loo gën a ponkal tubaab yi soxlawuñ la. lijjantewul la nekkal taayfin bu ràgg ñu fonk la kenn daa doyati ay ponkal. mais sénégalais dañoo bëgg a jigéen bu. am suuf waaye ma ne dimbali ay ponkal ba xëxër fii te ponkal yi bëri dañoo salte duñu sangu <laughs> ponkal yi bëri sël mu dundam seen yoon jigéen bi toppatoo boppam c'est très rare nga koy gis très rare setu ginaar c'est très rare laa lay wax jigéen bu toppatoo boppam c'est très rare nga koy gis. dëgg la waaw kon nag ay yokk taat yokk yokku ween ak amul njariñ setal sa setu bopp nga sa luy am sa am sa am sa fulla dignité bopp da sit da sit mais dëkk boo xamante ne rouvation wax ju bon wax ju ñaaw rek fi nekk wax ju bon wax ju ñaaw rek fi nekk. Euh, Nell'ambito